الشيطان الرجيم بسم الله ngi nuyu suñu sëriñ yu yi fii di nuyu suñu mbokk ngi fi teew euh, di bi nga xam ñoo nekkoon fii doon réalisé yi nag xam naa ni suñu njëkk cant lay doon buñ paree euh, yegge leen euh, daalu liggéey bi ni mu tëddee woon ak ni ñu ko tëralee woon sant gi ñu ngi jiital ci sant gi suñu borom subhanahu wa taala ñi nga xam ne moo ñu may kàttan ak fekke ak tal ba ñu mën a liggéeyal suñu sang bi Cheikhul Khadim ci dëkkam bu tedd bii nga xam ne ku ko ci liggéeyal ab saa rek daanaka sa faju aada àdduna ak àllaaxira kon niñ ko waxee di sant suñu sang Cheikhul Khadim si biñ ko jébbalee suñu lépp mu jaarale na fu nekk ba ñu ñëw teere fii si liggéey bu tedd bi si dëkk bu tedd bi di Touba di sant tamit suñuy allié yi nga xam ni ñoom ñoo àndoon di liggéey fii si euh, chantier bi di tali Ndamatou allié yi euh, ñu jiital si waa encadrement Touba sa kanam ouvrier waa Touba sa kanam population bi nga xam ni ñoom lañ doon liggéeyal te ñu sekkoon ak ñoom jàmm ak jàppandal di sant tamit concessionnaire yi muy Maaw Rahmati ONAS ak euh, Senelec Sonatel ñoom ñëpp ñi nga xam ni à chaque fois dañu am ay incident te bu bu ñu leen woowee ñu ñëw liggéeyal ak ñun ñu bañ defal ko ni mu waree Euh, di sant tamit entreprise yi nga xam ni sekkoon nañ liggéey bi si benn point muy waa CSE ginnaaw loolu liggéey bi ñu ko tàmbali woon le 13 mars euh, programme woon ko pour ñetti weer yàlla def mu dem ba juróomi weer ñu teg ñaar fukki fan ak juróom-ñett euh, amoon na ay arrêt nag arrêt yi li ko waraloon donc ay problème de niveau la nekkoon ñu nag waa ONAS ñu taxawal fi ay euh, liggéey bi ay fan ba régler problème technique yooyu continuer waat euh, yeneen retard yi nag xam naa si ay procédure appel d'offre ak yenn yi parce liggéey boo si nekkee souvent da am ay fournisseur am ay sous-traitance yooyu yëpp ay procédure loo xam ne day jël temps boo xam ni si euh, moom moo waral yenn dépassement de délai donc liggéey bi ni ñu ko xamee avant ñu koy tàmbali def nañ étude d'exécution étude d'exécution bi nag euh, dañu def euh, étude euh, hydraulique bi def étude de sol bi pour xool portance sol bi après ginnaaw bi ñu defee étude yooyu ñu mën a def tamit suñu étude topographique mën a caler niveau bi nga xam ne moom la tali bi am ba nga xam ni non seulement tali bi di ngeen si mën a taw ba pare mais bi ngeen mën a drainer waale ndox mi nga xam ne moo fiy jaar. te ndox mi ginnaaw bassin yi nga xam ni ñoom lay récupérer muy bassin wu Kër Sëñ Ñaan ak euh, bassin wu Guy Mbind yëpp fi la ñuy wàcc ndax na ndox mi fiy jaar du ndox moo xam ne si ndaamaatu rek la mais yu bëri si kaw lay jógee parce que boo xoolee ndaamaatu dafa gën a suufee par rapport ak Kër Sëñ Ñaan ak euh, euh, Guy Mbind ba tax biñ calibré bassin yooyu xool fi ndox yi jaar ñu defar benn type de boo xam ne si rampe yi wàcc ay chaussée souple lañ koy wax moom lañ fa def si digg bi ñu def ko chaussée rigide chaussée souple yi mooy 300 mètres yu njëkk yi ak 350 mètres yu mujj yi parce que tali bi mu ngi toll si 1050 mètres linéaires donc sose souple boobu ñu ngi ko def benn corps de chaussée boo xam ne si pousse de fondation bi existant di lañ jël scarifié ko traité waat ko def ko pousse de fondation après ñu jël euh, def euh, une couche de base basal 0,35 moo nga xam ne mooy gën di couche de base bi nga xam ne moom la Sénégal fii di def euh, amul benn boo xam ne si gën na ko ko bu ñu paree aussi ñu teg benn revêtement en enrobé dense mooy béton bitumineux te 5 centimètres bi nga xam ne moom lañ teg si autoroute yi si euh, route nationale yi moom lañ moom lañ fi euh, si digg bi nga xam ne moom la ñu wooyoon zone critique bi nga xam ne moom mooy récupérer ndox yi si lañ def benn radier submersible boo xam ne si sur 400 mètres la Euh, radier bi mu ngi am largeur bu 7 mètres 40 am ay caniveaux si côté yi donc caniveaux yi 400 mètres de part 400 mètres de part et d'autre muy mètres de caniveaux yoo xam ne ay 60 la sur 70 am na ay zones yoo xam ni sax autour bi dem na ba yegg ay 1 euh, mètre te loolu li ko waraloon mooy suñu digganteeg ONAS euh, ngir bëgg a respecter di ñoom si liggéey bi ba nga xam ni ndox bi bu mën nañu ñëwee dina mën a évacuer ni mu waree. te ñoom amet tamit ëllëg si biir buñ bëggee connecté seen réseau buñ jëlee feneen comme que fii aussi assainissement aussi tamit ñun buñ liggéeyee si ñoom la ñuy versé ñoom di ngeen mën a raconté si loolu looloo waraloon yenn yenn caniveau yi dem ay autour un mètre euh, si ginnaaw sa sax entre parenthèse aussi suñu sous-traitant yi nga xam ne ñoom la doon liggéeyal moom tamit ñu amoon si Pastef bu am solo donc euh, mooy euh, radier bi nag ñu des seulement 40 en béton ñu def si deux lits de ferraillage de douze ak benn épaisseur de vingt centimètre waaye boo taxawlee tamit daanaka moo chaussée euh, euh, rigide bi nga xam ne moo gën si li ñuy def fii si Sénégal. à l'occasion aussi ñu ngi santaale tamit waa ONAS parce que boo defee sa réseau tamit ba pare te amoo foo ko sotti tamit donc daanaka doo am njëriñ donc ñu ngi leen si santaale bu baax a baax tamit si ubbeeku bi nga xam ne ubbeeku nañu ko. bien que diggante bi parfois ñu am na fi ay wax ak yooyu mais à chaque fois dañuy dañu convoqué avec euh, préfet bi yëpp mu di jouer rôle bu am solo ñu waxtaan ak ñoom ba trouver benn terrain d'entente ba nga xam ne liggéey bi dina euh, antu ni mu waree euh, te loolu tamit bi mu tawee gis nañ ko ndox mu bare fi daan daje waaye même pas deux heures de temps loolu yëpp da daal di donc daanaka loolu moo nekk kon liggéey bi waaye nag bi ñuy liggéey tamit terewul à chaque fois contrôle bi mu ngi doon am ndax muy couche de fondation bi muy couche de base bi muy euh, révénement bi ak béton armé bi à chaque fois day am contrôle géotechnique am contrôle topographique contrôle géotechnique ci euh, réception densité yi ak euh, contrôle béton armé bi ay épreuves yu ñu doon jël def ko laboratoire di xool écrasement yi à 7 jours 28 jours voilà donc pour lép mën a respecter normes yi nga xam ni moom la ñuy liggéeyee noor moom la liggéey liggéeyee tali fii Sénégal voilà donc daal euh, ñu ngi santaat bu baax a baax di gërëm waa Touba Kanam bu baax si jàppandal bi nga xam ni euh, assisté nañ ñu ko parce que tamit tali dafa xaw a cher voilà donc euh, à chaque fois da ngay demandé demandé di demandé waat te prix yoo xam ne si donc du loo xam ne si dañ koy tàmm daal waaye nag biñ demee ba pare ñëpp fàttali prix yi ndax utilité liggéey bi. waaw donc xëy nag moo demee noonu ñun nag ñu ngi si gën a santaat bu baax a baax a baax si li suñ borom def ñu bokk si liggéey bi. coup bi voilà waaw coup bi nag moom xam naa dama amoon digal bàyyi ko président sax. d' accord incha allah waaw xam naa donc daal noonu la liggéey bi tëddee donc biñ defee rajo bi am na ñaari réseau évacuation yu ñu kii benn réseau pompage la. Euh, dem si kii wu bi ak beneen bi dem euh, réseau gravitaire dem loolu yooyu yaa ñoo si euh, réseau ONAS bi lañ dem ñëw bi Mawlana Cheikh Mountakha yàlla ñu ñaan yàlla yàggal ci wér mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu leen di nuyu di di jiite ci nuyoo bi Mawlana Cheikh Mountakha yàlla ñu ñaan yàlla ci wér di nuyu nag Abibu mi nga xam ne tey jii mooy fi toog toog di mag ci jataay bi ànd ak ay waa kër yi nga xam ne ñoom la àndal wax ki nga xam ne mooy Cheikh Modou Bachir nga xam ne moo fi toog ak Cheikh Mountakha ak sëñ Cheikh Obada ak mbooleem suyoox yi nga xam ne ñoo toog fii lépp di nuyu itam monsieur le nga xam ne mën ñëw fi di jàmbaar boo xam ne dafa am ñu ci liggéey Touba di leen nuyu nag ci turu mairie Touba muy commune de la de Touba ki nga xam ne Abdou Lahad Ka moo ko jiite mu représenté ko fi nekk nag ci biir représentation bi ma mën ne délégation bi dafa duggaat ci biir Touba ca kanam ndax li tax ma wax ne délégation bi dafa duggaat ci biir Touba ca kanam membre yi nga xam ne tey ñoo waroon a composé bi dañoo nekk ay membre yoo xam ne ñu ngi ci biir Touba ca kanam ma man cee ràññee Serigne Cheikh Abdou Mbacke mii nga xam ne te commune ba mooy ki nga xam ne moo jiitee lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu assainissement ci biir commune Touba nekkaat ko fii ci Touba ci kanam loolu nag muy tegtal boo xam ne lañ ci jublu mooy wane rek ne Touba ca kanam ak mairie Touba ñoo bokk lu ñu bëgg mooy bokk liggéey sëñ Touba moo tax ñu jël kenn ci Touba ca kanam muy adjoint maire ensuite jël ko teg ko ci euh, commission boobu mu jiite ko muy commission assainissement jëlaat itam Serigne Mafari Ndiaye mi nga xam ne moom itam conseiller la ci commune bi moom itam bokk ci Touba ca kanam nekkaat moom di fa liggéey jiite it commission commerce yor lépp kon mën naa ne ñooñu ci biir délégation bi nga xam ne ñoo fi représenté maire mën naa leen ci dugal ak ñeneen di leen nuyu di leen sant leen gërëm ci turu Abdou Ahad Ka ak mboolem laa commune de Touba. di am nag mbégte ak kontaante lool ci teew ci fii nga xam ne yàlla def na noo fi teewoon te xeer bi teewaat fi ubbite ko yàlla nañ ci teew ci yu mel nii ay yoon yoon barke ndax lu mel nii ku ci jaar ci télé bi a gis li ingénieur bi nga xam ne moo fi toogoon lépp wax ci ay normes yi nga xam ne télé moom la war a tëddee kee télé bi tëddee noonu kon doo man lu may sant ci gërëm ca xam ne def nañ lu baax di sant itam mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak Touba ca kanam ba liggéey bii lii nag liggéey la boo xam ne nii Serigne Touba rek moo ko am tax Serigne Touba rek moo ko am mairie Touba rek moo am mairie boo xam ne amaat na ñeneen ñu nekk ci biir mairie bi nekk ci biir dëkk bi di liggéey loo xam ne lii du compétence su maire maire yi waru koo mun a def waaye ñoo ñu taxaw taxawal ci Serigne Touba di ko liggéeyal di ko liggéeyal maire bi ndax liggéeyal Serigne Touba mooy liggéeyal maire bi ndax maire bi maire bi Serigne Touba du maire bu ñuy watee du maire bu ñuy def leen Serigne Touba tànn ay nitam def fa kon ñooñu bu ñu wëlbatikoo tubaa tànn tànnaat ñu mel ni tubaa ci kanam li nga xam ne tey boo demoon ci yeneen gox yi nga xam ne ay commune fa nekk kenn ku ne xam ne ni commune Euh, tëli ak assainissement du compétence su maire maire mënu ko du ko def bokku ci budget mu ci maire yëpp waxuma la bu Touba kon nag bu Serigne Touba amaatee loo xam ne nekk na ci biir loolee nekkul compétence am mu wutaat ay nit yoo xam ne ñooy complété loolu Serigne Touba rek comme kon ñun duñu man di leen sant di leen gërëm fas yéene ànd ak yéen itam lépp fu ngeen ànd ak fu ngeen jublu rek ak lu mën a doon rek ñu ànd koo yéen ba ba muy àgg eh, lu mën a doon ak lépp lu ngeen mën a tàmbali di ñaan ci barkeb sëñ sëriñ si Amadou Fadal lépp lu ngeen tàmbalee ci yàlla naa gi ci barke alquran wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi di julli ci yéen alayhi salaatu wasalaam di sant Sëriñ Touba di fet di suñu aju ci moom di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool kàttanal ko wéral ko dëgëral ko dimbali ko ci liggéey bu am solo bi nga xam ne koy liggéey sëriñ ñoo ngi yëkkati kàddu yu nuyoo jiital ci sëriñ Habibullahi Mbàkke mi kilifa Touba Ca Kanam Cheikh Mouhamadou Bachir sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke sëriñ Abibu ak mboolem kilifa Touba Ca Kanam yi fi teew yëpp nuyu monsieur le sous-préfet ak sëñ Alaaji Njaay bi fi teewal commune bi nuyu tamit mboolem ñi nga xam ne ñoo féete ci gox bi teg ko ci loxo Baye Mbàkke mi nga xam ne moo doon yëkkati kàddu yu am solo léegi kon ci ndigalul Touba ca kanam ci kilifa yi fi teew jaar tamit ci commission réalisation bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdoulaye Mbacke moom Serigne Damaat moo ko jiite ànd ko ak maam Thierno Ndiaye nga xam ne ñoom ñoo doon taxawee liggéey bii ñu ngi yëkkati kàddu yi cant ak mbégte di sant yàlla bu baax sant sëriñ bi ci dimbali gi mu dimbali taalibe sëriñ Touba yi ba ñu taxawal liggéey bii di liggéey bu am solo boo xam ne ni ko Baye Mbacke Ndiaye waxee léegi ne lu mat fukki at tali bi yàqu woon na yàq goo xam ne yéeme woon na tey àggoon nañ ci daanaka rek xam nañ ne ci dëkk bi lañu dëkk ci lañu bokk waaye mel nañ ne xawoon nañoo am aw dig seen diggante bi waa dëkk bi ngir am solo bu aw yoon am solo Baye Mbacke boo laajoon wala ku laaj lu tax lu mat fukki at tali bi am jafe-jafe te defar wutoon tontu li mooy dañoo toogoon di xaar ku ñu ko defaral ñi nga xam ne ñoo aju ci bi te xam yoon wii ak ñi ko xamut ñëpp dañoo maase toog di xaar ku ñu defaral yoon wi looloo tax mu toog fukki at defalu ko bi ñu maase yëpp ne war nañ koo mën a defar te mën nañ koo defar biñ ko songee defar nañ ko loolu nag mooy doxinu Touba Ca Kanam loolu mooy njàngaleem Serigne Touba ndax mbir lu mu nuru nuru lu rëy ci ñaar rek lay sotte mooy dangay ngay ne man nga ko ba noppi ñeme ko. te loolu mooy li sëriñ bi jàngale ci yitte ak pas-pas ak bañaa bañaa ñéeblu sa bopp ci dara ñoo ci sant yàlla bu baax muy liggéey boo xam ne dafay firndeel ne mbir yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ci ay du ma ko tuddee ay jafe-jafe waaye yi nga xam ne moo fi nekk tañ war koo defar lu baree baree bari ci li tax mu yeex mooy xaar gi ñuy xaar ñu ko defar te mën naa nekk waaye li nga xam ne tamit moom nañ ci war a jànge mooy mbir yi rëyut diisut aggut ci niveau bi ñu koy àggale liggéey sàngam dafa diis liggéey sàngam dafa jafe mënu leen ko loolu ku yaakaar sëriñ bu waroo koo dégg li am kay mooy lépp mën naa ne te lii am lépp mi ngi daje ci am xel xam-xam doole ak alal yëpp nag sëriñ bi am na ko yëpp daje na bi ci mujjoon ci tolluwaayu jamono nii ci tolluwaayu jamono jii mooy ak nosu lu ñuy wax organisation te ci taw fii ci sëriñ bi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te hmm. nosu googu am na te mooy Touba Ca li des mooy ñu gëm ne mën naa nekk buñ ko gëmee lépp mën a ne kon loolu ñoo ciy sant bu baax fii nii bokk na ci lii tax ma wax ne nañ ko gëm mooy Baye Mbacké bi muy wax léegi def ne moom ak ñu mel ne moom gëmoon nañ ne Touba Kanam mënuñoo liggéey liggéey bii kon faaw dañoo war a gëm ne mën naa nekk liggéey yu rëy yi fi nekk li fi nekk di nuru ay jafe-jafe noonu waruñoo bokk ci ñi nga xam ne dañuy toog ci kaw pexe yu baree bari ba noppi di jàmbat ay jafe-jafe pro grand projet yi ngay dégg Sénégal yu mag yëpp financement bi fan lay jógee li ëpp ci financement yi coopérative dëkk sangam wala aide wala collaboration wala crédit ci financement yi mag yi yoon wi li ñu soxla ci financement pour mën def grand projet yi am na fi te loolu firnde ji bari na lool lool lool jumaay Masaalik benn la ci université bi Cheikh Mouhamadul Mountakha taxawal ñuy ñaan mu fekkee ak àggam doxal ko ba la ko ca soog ci la bokk kon lépp mën naa nekk li am solo te war a am mooy gëm gi gëm gi moo moo moo war a am ñu gëm ne mën na ne ñoo ngi sutar yàlla bu baax a baax nag ci taxawaay bi nga xam ne commission réalisation taxawu nañ ko fii te sëñ Omar Dieng mi nga xam ne mooy ingénieur bi doon dikkaat léegi ci wàllu technicité ndax léeg-léeg am ñu jàpp ne te loolu sax euh, wëri su ko dégg wala ba wëri ko bàyyi xel jàpp ne liggéey yi du tegu ci xam-xam liggéey boo boo booy natt ba xam tegu na ci xam-xam wala teguwul ci xam-xam yaa résultat kon ñoo ngi sant bu baax réalisation ci seen taxawaay ci yitte ji nga xam ne def nañ ko ci liggéey bii sëñ Omar bi ngay wax mënoon ngaa ñëwaale ci coût bi nga xam ne def nañ ko fi mi ngi toll ci cent million 311 millions 989 mille yu teg weccet 311 millions 989 mil moom la Touba Ca Kanam def fii ci loo xam ne moom la génnee xaalis xobbet def ko ci directement am na ci loo xam ne nag duñ ko calculer waale or nañ sax léeg-léeg ñu koy duggawaale ci ci évaluation yi mooy li nga xam ne dañ koo jaayante ndax liggéey bi yàlla dogal na ñi ko taaw ñëpp nekk ci bopp bi Touba ca kanam du leen fay dañuy liggéeyal sëriñ bi te yàlla tax te loolu bu fekkonte ne natt nañ ko xayma ko dugalaale ko ci liggéey bi montant bi dana ëpp loolu kon loolu bariwut ci liggéey bii li tax bariwut mooy yàgg gu euh, yoon wu yàgg te defaruwutoon waaye yàqu gum yàqu woon ba ba xawee soon cee ñaaw njort ci ne daal lii ak defaroo moom yombatu loolu boo ko boolee day jox coût bi beneen beneen maanaam montant bi ñu ci def da koy joxaat beneen dayoo boo xam ne moo gën a kawe ñu ngi ci yàlla bu baax nag di wax loo xam ne ci Touba ca kanam na lu ko dal loo xam ne ñëpp war nañ cee bàyyi xel mooy Touba ca kanam bi muy doog a tàmbali laaj bi joxe bi dafa jiitu woon laaj boobu Touba ca kanam liñ ko daan jox moo ëppoon liñ koy laaj léegi nag mbir mi daa wëlbati lii xëy di laaj Touba ca kanam moo ëpp liñ koy jox jamono jii may waxee ak lii dikkal Touba ca kanam di sàkku ci moom mu may leen am ndox Touba ca kanam amul doole ju mën a lijjanti loolu donte luyee nañ ay oto camion citerne yaa ngi wëndeel waaye attanu li koy dikkal ci sama mbedd daa taa nañ ma ci dimbali ndox ma génn wala nañ ma may suuf Touba kanam attanu li muy teg kon war nañoo gën a farluwaat te kilifa yaa ngi ciy soññee di ci xàll ay yoon yuy tax loolu mën a nekk day delluwaat ci gëm-gëm gi ma waxoon ngir bañ a guddal nag fi ma ki jeexale ci kàddu yoo xam ne xëy na ci sama bopp laa koy jëme ak ñi nga xam ne ñu nag maa ñoom a ànd liggéey bi tama sañ koo wax ak ñoom mu nekk soññante digg ak dong diggante dong ak moroom ja mooy jëmmi tali bii ak yeneen yi ko nuru yi ñuy def yëpp yitteelu du sëriñ Touba ndax sëriñ bi àdduna taxu ko woon a jóg lépp yi ne nekk ci biir àdduna taxu ko woon a waaye nag am na lu ko ci yitteel dama ta bàyyi xel mooy xidma xidmatul muslimina gi nekk ci biir liggéey bi ndax mbir moo gis dafa am ñaar ñu ko composé mooy jëmm ak ruux jëmm ak ruux jëmm ji mooy jëmmi tabax bi ruux gi mooy liggéey liggéeyal xidma gi ci nekk mooy jaamu yàlla gi ci nekk lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum loolu lu mat a bàyyi xel la kadalika saqaraha lakum li tukabbirullaha kazalika faqadaha llahu lakum li tukabbirullaha ala ma hadakum yàlla moo nu kat moo nu dimbali tawfiix ju nu suñu borom defal tàggatal ñu mbir yi ba ñu mën a taxawal lu mel nii gindi ñu teg ñu ci yoon loolu la sëriñ bi bëgg ci liggéey bi waaye du jëmmi liggéey bi la cay topp nag mooy wa bashiril muhsinin kon bu ma ko soñoon dama naa jërë ngeen jëf yàlla nañ dugg ci bay ci sëriñ bi muy wax haza wa inni l yawma zo ridaai wa zo mahabbati li haulai salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëriñ Abdou Fatah. wax di di réer ak ni mel. dafa kàddu kaddu yu am solo yi ci bëggoon a dolliwaat rek. mooy tali bi 1050 mètres la. 400 mètres yi lañ def radier 400 mètres yi mooy tolloog si gënoon a yàqu fi gën a bari ndox. radier nag mooy ciment ak fer. mu tegu ci kaw ay couche yu bari ni ko ingénieur bi waxee. yeneen 600 mètres yi ci dollee ci ñaari wet yi wet gu nekk 300 mètres mm. tali ba fa nekkoon dañ koo defaraat mm. xolli ko mm. lalaat couche defaraat ko ba mu àgg foofu nag dañoo juboo woon ak waa AGEROUTE wala boog dañoo joxoon kàddu ci ne ñu demee ba ca couche bu mujj ba ñu koy wax enrobé d'amphibie bi te mooy goudron bi ñoom dinañ ko man a def waaye bi ñu ci waxtaanee ki nga xam ne moo nekk fii def ne loolu moom faw mu jàll ci ay kilifaam ci ndigalul Serigne Abibou ak kilifay Touba ci kanam ñu gis ne xëy na procédure boobu bu ñu toogee di ko xaar te yoon bi dañ ko war a jariñoo man mm. naa yàgg ñu ne kon na ko Touba Ca Kanam faf def loolu Touba Ca Kanam fay na boo ko koolee nag ak 240 millions yi nga xam ne moo jëmmi liggéey bi moo lay jox 311 millions 900 loolu lañ ci bëggoon dolliwaat. jërëjëf. yàgg na fee am te Touba Ca Kanam moo ko doon waral su ma su may lim. mën naa sax génn wàllu yoon mën naa dugg ci wàllu santé mën naa dugg ci wàllu assainissement mën naa dugg ci ay domaines yu bëree bëree bëree bëri kon nag kàddu yi kàddu cant lay doon ak kàddu ngërëm sëñ Abdou Lahad Guèye président sànq dafa wax ne moom bu sañoon bu sañoon a wax jërëjëf dina ko wax waaye man Abdou Fatah laay wax Abdou Fatah waaye man yaakaar naa ne warugar la ci man ma ne jërëjëf Touba ca kanam ci turu état du Sénégal ndax bi ngeen sosoo ba léegi yàlla dafa dogal yéen ngi woyofalal yan bi état ci dëkk bu sell bii di Touba loolu nag bu ñu fi nekkoon di ko lim daanaka fii lañuy fanaan kon jërë ngeen jëf ci liggéey bi nga xamante ni bii état la waroon ci dëkk bi te ngeen gàttandu ko ci loolu nag ñun gëm nañ ne bu ngeen fi nekkutoon xëj na dina gën a diis ci ñun waaye nag li li nga xamante ne bii moo ci gën a moo ma ci gën a neex dama koy wax ci kanam seen kilifa sëñ Abib sëriñ bi saa yu ñu jotee ndigal pour def loo xamante ni bii ci askan wi la jëm yàlla seede na ne bala ñu ko tàmbali ak lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw dina bind bataaxal yëgal ma maanaam umpaliwuma ci benn wet sama diggante ak Touba ci kanam moo tax lépp loo xamante ni bi dugg nañ damay sawar di ci ànd ak ñoom ba ci tali bii saa yu amaan ay jafe-jafe ak nu mu munta toll daf ma daan jaral ma dagg sama yitte ñëw ànd ak ñoom ba mu saafara loolu nag li tax ma gën koo sawar a def ci fii dama fee xam ni mu meloon ndax ñetti màggal la ngi nii ñetti màggal màggal bu ñu jub day daan bokk ci bëgg-bëgg yi nga xamante ne bii comité d'organisation bi daf koy fësal ne bëgg nañu kat li wër hôpital bii di hôpital Ndamatou ñu defar waaye saa saa yu ne yàlla def daan def ñu dugg màggal gi ba génn ko te loolu duñu ko mën kon nag ren bu ñu dëgmalee màggalu Touba yàlla dogal ngeen amoon yéen a def ko maanaam mu doon loo xamante ni bii dañu ko daan xalaat bi ñu yëgee na yéen seen wàllu bopp am ngeen yéen def ko boobu lañ seen noppee xalaat xam ne bu ngeen ko sumbee incha allahu rabbi yàlla dina su may ndam ndax lépp lu ngeen sumb fii suñu kanam gis nañ ne yeggali ngeen ko te yeggali ngeen ko ci anam yu gën a rafet kon nag li ñuy wax rek mooy li ngeen mën ren yàlla na ngeen mën lu ko ëpp déwén lépp loo xamante ni bii et loolu may jël engagement fii yéen a ngi ci jàppalee na ñu ngi ci seen wet seede bu may mujj def nag sëriñ bi mooy man de bi ma fi nekkee ba léegi fàttalikuwuma ci wàllu liggéey bii lu ñu soxla ci Touba ca kanam te mu jaar ci man te ñoom yombaluñu ko muy ci wàllu matériel muy ci wàllu maanaam liggéey dem nañ sax ba ne képp koo xamante ni muy OFOR walla maawo wala assainissement soxla na ci Touba ca kanam mu jàppale ko daf koy jéem di jaarale ci man saa su ne ndax xam nañu relation yi ma am ak ñii muy Abdou Fattah muy Mafari muy Xaadim euh, muy maam mbay mii fàttalikuwuma man fu ma leen euh, euh, laajee ñu jàpp ci liggéey bii nga xamante ni bi mooy liggéeyu dëkk bi ñu gàntal ma loolu nag bu ay kilifa yi toogee yoon la ma leeral ko ngeen xam ne suñu diggante bi daal wax dëgg ko yàlla diggante bu rafet la diggante bu mucc ay la ba fii maanaam euh, ñuy waajal màggal gii am na ci sax loo xamante ni pour leen pour wax leen rek suñu diggante nu mu rattaxe am na ci mébét bu ñu amoon ñoom ñu waxtaan ci ak man maa leen kat lii kat bu ma sañoon ñu bàyyi ba màggal gi jeex ñu sóobu ci waaye na ma ko bëggee noonu lan ma ko yombalee donc wax dëgg fa yàlla ñu ngi leen di sant di rafetlu seen ànd ak ñun vraiment rafetlu nañ ko mi nga xam ne mooy kilifa Touba ci kanam li ñuy wax ci kanam dañuy nuyu nuyu mbooloo bi jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moo fi teewal Cheikh Mouhamadou Mountakha ak Cheikh Mouhamadou Bachir ñu ko yóbbante nuyoo ak Cheikh ak cant Cheikh Mouhamadou Mountakha ak ñaan ko wax ne ko sëriñ Habibou nee na moo waa Touba ca kanam ñu ngi sant suñu Muntaxa baax te di ko ñaanal suñu doom yàggal ko lool te muy fan te lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ Touba mu defee ko nag ko bëggee mu Cheikh Mahamadou Balla ñu nga xam ne ñu jataay bi ak mboolem kilifa yi ñu teew ñu nuyu ñu soo su teew ak ñu fi teewal monsieur le maire Abdoulaye Ka Alaaji Njaay ñu di wax Cheikh Mamadou Bachir ñu ngi sant yàlla bu baax sant sëñ bu baax di feetlu suñu jaayante ak sëñ ak suñu laxasaay fas yéene koo gën a liggéeyal ci dëkkam bii kàddu yi sëriñ xëy bu ñaar rek lay jël chant di sant kàddu yi sëriñ xëy ci ñaar lay jëm sant ak soñ ndax li jëm ci wàllu liggéey bi moom Abdul Fatah li mu ci wax ak ingénieur bi ko yowoon amoon njëkk doon sëkk kon sëriñ xëy bu day sant yàlla di sant sëriñ Tuubaa di sant mboolem ñu àndal liggéey ak mboolem ñi nga xam ne bi wootee woote bi wuy nañ di sant bu baax waa quartier bi ñu njiitu sëñ Mbacke Ndiaye bi nga xam ne mooy li ñu ko waxee mooy ndongal quartier ak mboolem ngi ñu ngi koy comme yóbbu di ko teg seen loxo di ko teg loxo sëñ moom loxo si bi nga xam ne moo fi ñu ko sëñ ma bay yi ak mboolem mi ngi ko àndal ñëpp ak mboolem ay oto di nuyu kilifa gox bi yëpp di leen sant di wax Cheikh Amadou Seye sooy ñëw ak waa Touba di kanam ñu ngi lay sant bu baax. ndax yow bi ñuy tàmbali liggéey bii yaa dikkoon ànd ko ak ñun teewal fi sëriñ bi tàmbali liggéey bi boole ci ab soññee ba tey liggéey bi àgg nga bàyyiwaat si nit di ñëwaat àndaatu mu loola kon Cheikh Mamadou Bassir sant nañ la baax a baax ndax ku ne xam na ne amu ak jot rawatina ci waxtu wi ñu doon ndax màggalu Tuubaa ni mu diisee ak liggéey bi ni mu yaatoo te lépp sëriñ bi teg ko sa loxo nga di ko saytu kon loolu tegtal la dañu amoo jot waaye teewul biñ la ko waxee da ngaa wax ne lu loo mën loolu mën a dajeel rek da nga ko bàyyi incha allah te jéem koo teewe si te it léegi li ma doon wax feeñ na léegi ndax jotaay bi rek soxla la nga waaw te wuy ji lu jëm ci liggéey bi kon ak jot sax dañ ci jaarewaal sax fa tënk kàddu yi ndax ginnaaw sëriñ bi dafa laa soxla te soxla si moom soxla waaye li mënta ñàkk daal mooy sant mosal su ko defee sëriñ yi mu nee na ñu ngi lay sant di la yóbbante ak cant ci say kilifa ci ni ko waxee ci liggéey bii nga xam ne ñu ngi koy liggéey suñ tuwaa ci dëkk bi te ngeen am ci ak wet boo xam ne mënta ñàkk ñu ànd ak yéen ci kaw ànd ji ak yéen it muy ndigal loo xam si amoon moom taxaa dama lépp lu ñuy def waxtaan ak yéen yéen itam jàppandal ngeen mboolem ñu soxla ci yéen ñu jëm liggéey ba jàppandal ba ci màggal ji liñ ci soxla ay ñu li tax suñu butaay yi man di dem ak dikk ak lépp loo xam ne dana jàppandal ndox mi waxate ko liggéey

ndax ba muy laaj ñaar fukki juróom-ñett ci njeew dafa waxoon ne damaa bëgg lépp lu ngeen bëggati ngeen maanal koo defal seen bopp ndax ku maanal sa bopp sañal sa bopp te ku la maanal keneen pour sa bopp nga sañal la te jàngale moo ni sëñ bi jàngale woon ci ñaar fukki juróom-ñett ya moom la Touba ci kanam di doxe tey jii moo waral Touba ci kanam taxaw ñu taxawee ba tey yaakaar naa képp ku xool da nga gis ku diglu da nga dégg gis résultat yu leer nañ ñi duñ def ci dëkk bi ah, ah. kon lépp fataa doon wax léegi duñ waaw a gëm la waaye lu mën a nekk la ndax liñ naan mën naa nekk mënt nekk day lu ñuy xalaat te agsibu waaye loo mën a teg sa loxo lii ñoo ko def ko xam ne mën naa nekk kon nag foofu laa jaare ci soññee ci ne na taalibe yi nun taalibe yëpp na ngeen tàllu def su itte ci Touba ci dëkk bi mën nañ ko defal suñu bopp ndax sëñ Touba suñu borom defal ci Cheikh Mamadou Mountakha leeraloon nañu ko ci fan yi ci ko waxoon ca ci wërsëgu yi ni mu demee leeral bu leer nañ ñi kon wërsëg jox na ko ko joxaat na ko dongo yi mi ngi ko ku ko ndax nit moom ñaar rek a moo mën a am sa bopp sañal sa bopp defal sa bopp mënuloo sa bopp sañuloo sa bopp di tàllal na jox nañ ñañam luñ ko defaree kon nañ taxaw ci def ndax kat dafa am loo xamante ne buñ nax suñ bopp dafa mënta ñàkk ci képp kuy dund daa am yoo xam ne moo addina ñoo am mënta ñàkk te ku ko amut loolu nag bokk na ci am ndox mu naan mu mu ñuy naan mu doy mu sell ku ko amut faaw da ko jéem a wuti boo seetee ñu ëpp ci dëkk bi ñu ëpp ci nun dëkk bi dëkk dëkk bi ndoxum dëkk bi naanuñu ko dañu yéen am ndox wala boog bu dee ndoxum dëkk bi dañ ko jël defal ko defal ko ci ay usine segg ko def ko ci butéel jaay ñu ko ñëpp ko doog koo mën a naan kon ña noonu ndox mi nga xam ne moo mooy ndox mi nga xam ne mooy baaxoo génn ci dëkk ci ndoxum suuf kon loolu war ko xam nañ ne mënuñu koo ñàkk rawatina buñ tolloo ci waxtu ñaar rek mooy am defal ko boppam baa baa ñu defal ko te mënal nañ ko suñu bopp kon lépp dañ ko a gëm ne mënal suñu bopp ñu jéem ko defal suñu bopp ndax dëkk bu toll Touba ñu gëm ne dañoo war di naan ndox sangu lépp di doy te duñ fay duñ loo xam ne ne adduna weesu na ko a nekk ndax ba mu mooy ba population bi tollagul nii mu toll nit ñi néew lool ay teen ak yeneen foo xam ne daa àgg na ko ndox mi moom ak a wax mënees na koo a fay de fay ak konto waaye ñàkk xaalis muy dañ ñu koy defal ndax jàpp naa ndax am nañu koy fay kon loolu dañoo gëm ne ñun dañ ko war a defal suñu man nañ ko mën nañ ko nag def ko mu leer nañ ñu gis ko daa gën a wér ndax li ñu koy defee mu leer nañ ñu gis ko mooy ñaar téeméer yu yu sëñ bi ñu yëkkati woon doon def ak mu jot am ñaar fukki milliards ak ñeent kon ba a loolu lépp dañ koy gëm fasoo ko te jëfe ko ndax sëñ Tuubaa wàccoon na ak moom li mënta ñàkk lépp fàkku na ko waxoon na ko ci ba ñuy tàmbali jumaa ji sëñ Fallu gisoon carrière ba ca ndokk yónnee ko ba mu ko gisee am na man mu jógee fi siyaar sëñ bi li moom laaj mu ne ko ndokk lañ ko gisee sëñ bi ne ko andi nañ ko ne ko ndax xamoon nañ ne am na fa kooku di ko mën a wax sëñ bi ne ko njëkk ba ko soxla ko mu ne boobu dafa mu ñëwoon am na mu ne ko suuf sa fañ ko a mu ne ko xamoon nañ ne am na fa mu ne ko njëkk ba ko soxla ko ne ko na mu ne ko lépp mën a lemee lu ngeen gisagut ak génn ma jotugul waaye man lu ci lépp fàggu naa ko ba def ko fa lu ak génn jot naa ko génn kon lépp a kon kon nag naan fas yéene bokk te ña koy génnee sëñ Tuubaa loolu itte képp la pas-pas képp la ndax buñ amee pas-pas am itte am jom luñ bëgg a def mën nañ ko def ndax mbooloo moo xam ne am nañ xam-xam am nañ wërsëg doon benn baat fu ñu àggut seen seen ko yàlla dafa defalu ko kenn foofu mbooloo mu toll nii am wërsëg bi am am xam-xam bi am di diglu kenn lu mu wax tey ñëpp maas sëñ Tuubaa donc am kenn moo ko njëkk am moo ko mu jàmm te kenn dootu ko kon nag loolu wóor ñoo yam ci sëñ bi amul morom dañoo war a jëf loo xam ne tey jàpp naa ne fekkonte ne demee woon ne ay milliards lañ ciy kon bu ko sëñ Tuubaa mënee am ci njëg gi mu bi mën nañ ko koo defal ci na mu war a mel te ñuy wax ndax ëpp ca liggéey ba day day des kon nañ gëm loolu parce que boobu nañ ko am ndox mu Tuubaa nii ngir yàlla jëmi sëñ Tuubaa nañ ci taxaw ci saafara ko mën nañ ko te tu te Touba Ca Kanam gi suuf jaawale lii ñu ko jaawale kër yi ak ñu ko jiitu mën nañ cee jaar ba ñu jënd ndox mi leneen assainissement nañ ko mën nañ ko yóbbu jël laaj wax genn kilifa ma ma ma naan ko am na loo xam ne buñ ko lu yomb la te diggante gàtt moo ko fi dajale joxe ko kon nag dañu war am pas-pas boobu am gis-gis suñu émi bii nag itte jooju la am pas-pas boobu la am gis-gis boobu la mu mu mu woon lii mu woote kon ñu yàlla jëm Sëñ Tuubaa tey bi Sëñ Tuubaa yëpp la jënd wu si kenn ku nekk borom kër gu ne def ko na sa dépasse di ci soññi sa njaboot sëriñ si kilifa yi ñu ngi leen ci gën a tàllal loxo ñu soññi ci seen ndax kat li leen taalibe di jox moomuñu ko sëñ bee ko moom kon nag képp koo xamante ne sëñ ñi ngi lay jox ñu sëñ bi delloo ko ci sëñ bi te delloo ko ci dëkk bi amul lu gën a itteel sëñ Tuubaa delloo ko delloo ko sëñ am na ci mag ñi ku mas a am ab taalibe bu ñëw jébbalu ci di jébbalu ci moom jox di ko jox addiya mu ànd ak moom ba si mu ne ah man kat suñu maa nangu addiya suñu maa nangu jébbal damay ba si ba ma ko jaay yàlla bii dafa ñëw ne ma dafa te man nag damaa jaaxle sa bopp ba la ko ba ñëw dénkaane ko nag sëñ ta nangul kenn lañ jébbal sa bopp damaa jaaxle yow mi nga xam ne nag yow bi ma jox la nangu lim lay jox ku nangul nangu lim lay jox képp ku ku fu jugee ah, ci feneen fenn jug agsi ci yéen ci kenn ci yéen ñii nga xam ne yéen laa defal fukk ci yow la jébbal na nga xam ne nangu woo man ñu maa na nga ko jël alal ji nag boo ko jëlee na nga ko fexe ba defal ko ko foo xam ne dana neex yàlla te neex man ñi tax ma jox la soo ko defee fu neex yàlla def ko fu neex man ñi tax ma jox la soo liggéey danaa la fay fay ko moom te kenn du yàq sa fay moom yéen kon nag loolu ak soññee la kon war nañoo bàyyi xel li ñuy joxe ñu sëñ Tuubaa kon képp koo xamante ne ñu ngi jox ñu sëñ Tuubaa soññeel dëkk bii lu gën a ittee sëñ Tuubaa dëkk bi amut ndax moo waxoon ne dëkk bi gaa yu baax yëpp ma ko fenn suñ doon ne xeej yëpp dañ ma def mu def mu def xeej yi ay xeej yi bëgg ko mu ne mu dëkk bi tànnalal sa yi dëkk sëñ Tuubaa ne dëkk bi tànnal boobu tànn gi ma dëkk bi tànnal boobu moo tax ooma sabab dëkk bi moo tax nag képp ku koy liggéeyal te def ko ci dëkk bi na la liggéeyal na la wóor liggéey bi sam ko am na ci a kër gu ci ñu nekkoon ci biir kër boo xam ne a aw wëllëwoon dafa faatu mu ñëw tibb suuf ne sëñ bi damaa moom wëllëwoon boo xam ne dafa faatu bëgg nga ñaaral sëñ bi nag na suuf sa sëñ bi di ci bëgg tey loo ne fu ñu ko denc mu ne ko tubaab sëñ bi ne ko ah suuf si Tuubaa moom noppi naa ca la ma ciy néew suuf saa ma ko ciy defar kon nag suuf soo xam ne boo ci duggee la nga bëgg lépp mu defar la ko képp kuy dox ca kaw suuf sa war ngaa def ca kaw suuf sa loo xam ne bu duggee suuf sa suuf sa a te am itte te am pëstéer ci liggéey Sëñ Tuubaa ñoo ngi sant ñëpp di jéglu xam naa càmp gi du mën a ñàkk mu del si tuuti rek ñu yowal liggéey bi di sant itam waa monsieur le ne moom la fi yewal ak mu àndal xam ne ànd nañ ko ak kon ñu ngi di sant di sant ñi doon taxaw liggéey bi sëñ Abdou suñu tàngaat ak suñu maam Thierno Dia ingénieur ak Omar Dieng nga xam ne moo doon ingénieur bi ak di sant bu baax itam ab Diaw Xilma ak équipe bi mu àndaloon bi nekk tey sant waa bu baax jàppale gi ñu doon jàppale ak jàpp gi ñu jàpp di sant presse bi ci teewaay gi ñu fi teew di sant ñëpp di di di jégalu ñëpp nag di jégalu ci kàddu yi ndax yàkkamti gi te ak tëlee wax gi waaye ñu ngi sant di ñaan yàlla yàlla defal ngërëmu sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf jërëjëf kaddu yi mel na ni. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bu ma ko soññoon wax kat daanaka dana wax sëriñ bu ñaan ndax kaddu yi kenn xamul doo ci doon wax yàlla xam ndax soññoon bi kawe na te na te dëgg na te lu bàyyi ko ci moom saa soo ko déggee demel mosoo ko déggee. day yeesaa ci yow damay wax day waxe sëriñ bi lépp lu ko tibbee ci alxuraan alxuraan saa soo xëyee jàng ko bu la suñu borom suñu borom defalee ak dégg saa soo xëyee jàng ko danga ci dégg loo ci dégg loo ci dégg so waaye waxe sëriñ Tuubaa yi saa soo ko déggee day mel tey nga ko jigéen dégg loolu nag fa mu bàyyi ko ndax koo xam ne ISRA katabtu tëzza arsu baaxi wa shabba al malaayikatu baaxi saa soo yëkkee ne sa xëy na aras ak kursi yi jaagu loola ku nekk li say wax itam moom la sëñ bi daan wax ne waxtaan ma dana jàng ku dégg kàddu yi xam ne jàng bi daal wax ji rafet na ma ko sëñ bi joxoon bi ak li ma sëriñ bi yi kon dama koy wax mu ñaan ak dara mënu ci dolli ndax bi sëñ bi fataay day waxee kàddu yi mu wax ak ni mu ni mu ndax Touba ci kanam day àll suñu Touba damaa jàppoon loolu dara mënu ci doon waaye bi suñu daxal waxee man sama jumbo damaa yóbbu fu seen kon nag sëriñ bi suñu yóbbu ñu ngi lay sant wax ci turu Cheikh boobu di la cant ci sa loxo nga àggale ko ci mboolem waa daayira Touba ci kanam yëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu sëriñ Cheikh Oumar Cheikh Mamadou Fadi mi nga xam ne ñu ngi toog ñu ngi xam ne te ànd ak di nuyu suñu Abdou Lahad Mbacké si yéen ñu doon yëkkati kàddu gi wax jënd sëkk di nuyu sous-préfet maa di ko sant moo tam ci taxawaayam ci dëkk bi ndax wax dëgg bu jàppandi bu dajee jamono yu métti waaye gàntu bu ku nangu la pour mën a lekk wàññi moo tax mu war a déglu jéem kon ñu ko koy soññaat ci ba di ci sant bu baax nga xam ne ñoom ñii kat li ñuy def ndegam yéen la war. ñu jug di leen ci gàtt ko kon lépp lu koy jàppale de war nañ ko ndax li ñuy def yéen la war yéen la ko war a def kon bu leen ci gàtt ko dina ko defal dara lu naa ne wóor ci ndax le sëñ Abdoulaye Mbacke daa wax ne foo ñaar de xëccoo rek xamal ne àdduna tax waaye xajal ma penku damay bindoon boo ko kon fu ñu xëccoo rek dara jox la ñu alxaaji Fallou Ndiaye ci ñu fi teewal sëñ bi daal te bi xam ne mooy commune jiite commune bi ndax lépp day ànd sëñ bi kon li ci am solo rek loo xam ne mel ni bi la te kenn mënoo koo xàjjale ñu fexe ba dajaloo nekk wala say moo di kon nag alhamdulilah rabbil alamin ndax Cheikh Mamadou Mountakha kat toog naa sëñ bi daal bi nga toog mu wax ko ne daaw bu ma sonal lépp lu ngeen jot rek na ngeen ci déggoo ak ñi yor nguur yi déggoo ci ñeer dëkk bi moo soxla genn kii yooyu monsieur moom na kon ba mu ko bëggee rek ci la ko yàlla def ndax nee na yàlla def na ko ci ndax bokk leen fi ngeen jëm rek ndax ñii dañuy liggéeyal àdduna yéen ngeen liggéeyal Sëñ Tuubaa kii liggéeyal àdduna li muy séntu mooy ak cant ak pay ak jaajëf ki liggéeyal Sëñ Tuubaa nag li muy yaakaar ëllëg loo ko xaar ndax Sëñ Tuubaa li ñuy séntu coon di ko liggéey ëllëg a tax kon nag yéen li ngeen di liggéey Sëñ Tuubaa ngeen koy liggéey ëllëg la seen projet waaye Sëñ Tuubaa rek day gàttu bi la ko Cheikh Ibrahima Fall waxoon ne ko ba may ba may ñëw di jaayante yow lu toll ne kaw kawaru bopp sax jàpp moom dana ma bii nag sa élu loolu sëñ bi wax kat ab day yaay lii maarufat bi xam waaye seen seen sa daayira bii xalaat yii day loo xam ne ñëpp ko daa gént di ko xalaat te kenn jàpputoon lu maa nekk waaye nag nekk na waa xawoon man mos te ci seen loxo la ko yàlla kon nag loolu gën a sant yàlla ndax keroog la la Cheikh Mouhamadou Mountakha seereel ci kanamu adduna sépp ndax daa wax ne tëgguma la de waaye li ma xam ci yow laa ba ngeen jógee si jotaay bi gisaat naa ko waaye loolu la seeroon si ginnaaw njëkk mu lay gis loolu la seer bi mu da nga fàddoo yi loolu la waxaat neen dama laa jàng xam ne waaye xam ne ne position suñu xam ne ko amul doogu ba li am solo te kenn mënu ko ñàkk mooy ak doo ak position suñu tubaab neen gis na ne ëpp loolu kon nag yàlla yàlla yàlla yàlla tubaab gàttal ñu ci liggéey te ñëpp gën cee te la sëriñ bi waxoon yaa rabbi ij'alil muridina maa fi xisnika alxasini wa chamlaj maa daayira bi yàlla ci yàlla ci Sëriñ Tuubaa ndax lépp loo xam ne gàllankoor amu ci sax waaye yàlla bu mu ci amu yoon wi rek yaakaari yoon wi rek kon ne ñëpp ne ci ñëpp gën a bës def parce que gën cee defu dogg dogg ndax sëriñ bi kat ku dégg keroog na muy waxee àgg na ci xaal boo xam ne xam ngeen la muy wax ñoo kon ku ci bokk ku ne na nga xam moo wutoo sa bopp góorgóorlu di seeral Sëñ Tuubaa li nga def bañ a gëstu démb loo jëfoon démb wala yëpp nga fàtte ko di ci soññ taalibe Sëñ Tuubaa yëpp itam la nit ñaa ngi soññ waaye soññu du doy ndax fa sakkir fi indee bi keroog tànn foofu moom faaw dañuy fàttali fàttali ko mënti ñàkk kon ñu ngi ci soññal taalibe yëpp di sant bu baax rek ci ni ngeen ko seetoon ni ngeen organisé day bàyyiwul kenn Serigne Cheikh bi ñu itam ñu ngi koy sant di ko gërëm ci positif na taxawaay ak ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ yoo xam ne da nga xam ne ñii Sëñ Tuubaa rek la ñuy jëfandikoo gëstuwuñ dara mooy ngërëmu Sëñ Tuubaa diggante suñu énu boog suñu Abdou Ahad nag sana suddo àndulaka bi ak noonu la ñu leen yéen ñaar seen ànd bi dafa jàpp naa ne pàggu defu Sëñ Tuubaa ndax suñu suñu suñu Cheikh Mouhamadou Mountakha Kéré wax na ko ñu ndax da gis na ne ci seen all bi. bakkan néewu ci te njiit lu bëggul adduna ak aji topp bu añaam la suñ njaay gën a waxoon sëñ Abdoulaye ak sëñ Abdoulaye loolu mooy daan kon sëñ Abdoulaye yooyu tam gën a laxasaayu topp ci ginnaaw sëñ Abdoulaye gën ko jàppale nii ngay def rek ndax liggéey bi na ko sëriñ bi waxoon njiit mënta ñàkk bu njiit jiitoon ngeen topp ci ginnaaw lépp dana jëm ci kaw ndax li ci sëñ Tuubaa noppi te gëm naa loolu am ndax man mi xam si nit nii laa mas a am ci ndax danaa koy fàttali ku ma sa yëkkati ab dëkk ak kër gi ak daara di ko jox nit moom mii la ko loolu yàgg na quatre-vingt-quinze wala seize na kon xam ngeen ne xolam bi loolu Sëñ Tuubaa ñëw ci biir ab dëkk ak i donga ak kër ak lépp la royee ko ci la sëriñ bi defaloon suñu gaaw la Cheikh Abdoulaye mi itam xam naa ko am na am na lu ëpp fukki at yoo xam ne daanaka ay bis bu jot këram laa daal di ma seen bisoon bokk nañu fanaan ba tey kon xam naa kon dem naa liggéey bi moom daray adduna wala daray bakkan wala daray seetaan ci mu mënti def dara lu kaw ba àgg fa mu jëm ndax jëf ji ngeen jëf man mii ñëwoon teg si xeer wax dëgg bett na xalaatuma woon ne liggéey bi dana àgg fii ci rafet waaye lii kat ku ko réalisé war ngeen a gëm ne fenn fi ngeen mënta àgg ci àdduna amut lenn lu ngeen warta mën a def ci dëkk bi amut ndax lii moom réalisation bu rëy la boo xam ne dara gën ko kaw waxuma rek la ngeen jëbbal sëriñ bi kaw muy gëstuwaat ci université waaye tali bi ku fi jaar war war ngaa gëm ne war ngaa mën a roy ci na Cheikh Mouhamadou Moustapha defoon ca ba muy taxawal laaj ndax lii kat jëf la joo xam lu jëf ju tuuti te fii jege na jumaa moo tax daaw bi ñuy xool laa ne leen El Hadj Ndiaye mi sincère la jiitu màggal Tuubaa daaw waxoon naa assuré dërëm tëli bi jiitu ci gën a farata mooy tàmbale gaaru ndaw ba agsi bi yàlla def bi nga naa ba nar a yéex moo tax bu ko waxee ma laaj sëñ bi digal sëñ ci digal moo wax leen ne comme ne neewoon ngeen da ngeen ko def waaye gaaw kon bàyyi leen ñii nga xam ne li ñuy def mën naa ko ñoom ñu def ko ndax fii kat àgg ci moom taxaar ndax mbedd am na ay at yoo xam ne kenn jaarul fi fi jëli sax da nga wër di tali tam jege jumaa ji bokk ci biir xol kon nag li ngeen di def nee na sëñ bi waxoon maanaam jëfandu leen àdduna sëñ Tuubaa nga ndax sëñ liggéeyal ba samay naw le ma nopp mos ko dégg bët mos jot asalaamaaleykum wa nangu leen ñaan nangu leen ñaan